ne joxe nañ lu ëpp bi ñu dajalee biñ dajalee loolu ñi am lim bu takku ci xaalis benn jigéen ñu toog ne bàyyi liggéeyal ko warta em rek ci ñun nañ ko yaatal ci mboolem tund bi ak dëkk bi ci lañ jugee wër mboolem muqaddam dem nañ kër Madiabel bi nga xam ne ñoo toppoon Serigne Cheikh Ibrahim ñas bi muy ñëw fii nii gannaaw bu ñu wëree doomi Cheikh Ibrahim yi dem kër Madiabel ci Alaaji Baraam mu ñaanal ñu dénkuñu na ñoom ay mag lañ yéen yéen a ci des noonu lañ toppee kër xalifa yi dem ci Baye As Mahmoud mi nga xam ne mooy xalifa Baye Mahmoud dem ci suñu baay Bachir mi nga xam ne mooy xalifa El Hadj Mouhamad Zeynab noonu lañ ko toppee topp doomi Cheikh Ibrahima yi nga xam ne seen waajur yi nekkuñ fi muy bàyyi doomi El Hadj Abdoulaye mi nga xam ne moo ciy mag ñu oo ko mu ne mi ngi waajal ziyaara baayam bi waaye jox nañu ndigal ñu ne ko bu ziyaara bi passé danañ ñëw seeti la noonu lañ def Sidi Habib loolu lañ def Baye Cheikh noonu lañ def mbooleem doomi xadra sëriñ bi xaraka bii li ko tax a jóg mooy soppiyaat xarxame Medina ci doxalin boo xam ne méngoo naa li nga xam ne Cheikh Ibrahima moo ko moom la fi bàyyi ndax bàyyi ñaar rek la wax ci wasiyaam bi ne maa ngi leen di wax ne ngeen def seen itte pour jumaa ji mat ak li nga xam ne mooy maat bi ak sama téere yi nga xam ne moom laa fi bàyyi yéen samay doom maa ngi yaakaar ci yàlla ne yàlla dana leen jox wëlis lu ëpp ci wërsëg ngeen di ittiwoo sama téere yi di koy jaay waaye sama téere bàyyi yi moom bàyyi leen ko fi mu nekk waqaf loolu moo tax ñu ne bàyyi li mu fi bàyyi xalifa bi wax ko mooy ñeenti yëf mooy jàng jàngale liggéey jaamu yàlla ci loolu lañ bëgg a tënk xaraka bii nag yàlla def na balaa ñi leen di oo ndax duñ leen a bëgg a wàccee ci lépp mbooleem loo xam ne war nañ koo def ci tabax bii mat na yëpp yem dajale nañ cent tonnes yoo xam ne mi ngi loolu lañ dajale ci feer loolu lañ dajale ci béton loolu lañ dajale ci xaalis li ñuy sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu yàlla balaa juróom benn weer ñu ñëw jébbal leen caabi ji ñun ay ndaw rek lañ mag ngeen war ngeen a toog tey gis seen doom yooyu nga xam ne ñoo fi nekk ak yéen pour wan leen loo xam ne ëllëg da ngeen xam ne dëgg-dëgg li leen bàyyi bàyyee woon te réeréwu leen pousse bi ñun tamit ñi ngi teg ci yoon boobu moo tax sëriñ bi ñu ngi sàkku ci ñun yéen ngeen ñu yàlla ci liggéey bii nga xam ne moom lañu sémb di ci di séentu seen barke di ci séentu seen ñaan di ci séentu seen encouragement Baye Mbaye doomi Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne mooy caat mooy président yi groupe bii biñ ñëwee am nañ jafe-jafe ndax lii seen suuf yi bàyyi la yéen a ko moom ñun amul ci benn cër waaye gannaaw buñ ci amee seen digal moom mi nga xam ne kenn la ci yéen def ne sama néeg bi bu bàyyi soxlaa sax nañ ko daane joxe ko bàyyi ba léegi mawqif boobu la taxaw moom moo njëkk a jël marto daane néegam bi ne bu bàyyi soxlaa sax man amatuma néeg kon loolu ñu ngi leen ko seedal ci mawxif bi nga xam ne am na ko mawxif bu rafet kenn ci ñu yendalut lu mat weer a ngi nii bët bu set kuñ xalaat ne yëgalañu la ko rek danañ taal sa oto dem ci yow ci ndimbal seen ndimbal ak seen ñaan ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen encouragement di sàkku ci yéen ngeen ñaanal yàlla ndax Medina liñ bëgg mooy la bàyyi waxoon ne sarat laha sirrul madinati nabii xabasaha tan fi bila taraw bi sara laha sirrul madinati nabii xabasaha tan fi bila taraw bi loolu rek lañ tudd loolu sëriñ bi wax ji tudd wàllu maktëb nag ñun xamuñ ko yéen yéen ko xam ndax Cheikh Mouhamadul Mahi bii wax nañu ne bi nga xamee ne Baye mi ngi fi ak ñoom Baye daf leen daan oo di leen tuddloo téere mi ba pare taxaw di leen wax ne dugal leen bii dugal leen bii déggee naa ci sama leen bàyyi def leen daan dugal ci oto bu ñëwee vacances moo leen di jàngaloo ay bayti fii ba Kossy muy tari léegi biñ demee ci moom di koy yëgal ci jàngale bi ñu jàngal di koy wax ay étudiants daf ne leen dama daan toog ci ron Baye di liiral Baye Baye Mara ngi toog ci sama wet bàyyi na ko sëriñ bi xamul déggul li nga wax de mu ne ko bàyyi lépp lu may wax ni ngi koy dégg kon ñun jàpp nañ ne yéenay bàyyi tey moo tax bu ngeen ñëwee fii lépp lu ñu wax ñun wóor nañu wóor yàlla ne péeb yàlla bi dana ko nangu ndax Baye waxoon na ci seen xaq ne waalamu anni talabtukum wa antum bi lxaybi awliyaan lillah sàkku naa leen booba yéen ngi ca xayb bu nekk ay waliyu yàlla waaw gannaaw Baye sàkku na leen yéen a ngi ca xayb bu nekk ay waliyu yàlla ñun liñ lottu ci seen maqaama buñ tooxee buñ toxewee ci seen kanam suñu làmmiñ dafay damm ngir mbëggeel buñ am ci seen baay buñ taxawee gis seen kanam yi bëggutuñ dara yéen rek lañ bëgg kon shabab bii sëriñ bi maa ngi lay ñaanal yow mi nga xam ne yaa fa uutu xalifa bi laaj nañ ñaan laaj nañ jimbal ñi ngi seedaloo tamit ne suñu bàyyi Mouhamadul Khouraychi mi ngi taxaw ci suñu wet di ñuy dimbale mooy président d'honneur groupe bi ñu toppal ci Cheikh Abdoul Malik mi nga xam ne mooy naa ibam su fekkee nekku fi mu koy uutu ci liggéey bi mi ngi ñuy wax ay xalaat yu rafet ak ay afkaar yu rafet danañ ko jox microphone bi moom tamit mu mu wax ay xalaatam su fekkee maye ngeen digal loolu imaam Cheikh Tidiane Cissé tamit mi ngi ci tukki waaye par minute la ñuy oo di ñuy encouragé di wax na yëf yi yéen a ko war a def gurguru leen ci lottu nañ ci gërëm ko lool ñu ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko yàlla. rek finance maaxat bi soxlaa ñu jëli xaalis bi ci fond bi bu tribune bi soxlaa pour jëli xaalis bi ci fond bi bu association yi continuer di def li nga xam ne moom la am comme programme te yaakaar naa ne war nañ mën a war nañ mën a coordonner ci loolu war nañ mën a déggoo ci loolu parce que itam suñu ubbee suñu saal yi di wax yi dafay bari ku nekk damay jëlee fële indi pour euh, nangam ak nangam waaye yéen ñi nga xam ne yéenay doxal di ay sët di jarbaat di ay yaakaar naa ne bu ñu leen encadré li ci des da a mën bàyyi ëpp na loolu mbooloo mu mat cent millions ci àddina yi fi nekk nii war na mën a am structure boo xam ne bu organisé fii dana mën a organisé ci biti waaye bu fii organisé wu dana jafe ak yi mën mën a organisé ci kon ñi ngi gërëm sang yi nga xam ne ñëw nañu teew fii tey utu fi xalifa bi gannaaw bu mu joxee digalam ci ngeen jóg ci yëngatu yi ñoom tey ñi ñëw fii pour jàng ñaan bi nga xam ne moom la ñuy démarrer chantier bi euh, loolu itam euh, ñu bu baax surtout que ñoom ñi nga xam ne ñoo amee woon ñoom la Baye daan nettoyer loo bibliothèque bi alors comme ñoom bu ñuy defar bibliothèque bi ñu ñëw bokk ci ñuy lancé. ñaan yi pour ñu commencé liggéey bi loolu it beneen yaakaar la ci yaakaar yi nga xam ne moo ko jiitu kon yal na leen yàlla dimbale ba ngeen mën a mottali lii su duggee sax six mois yi ngeen wax mën a jàppalante ci yeneen projet ak yeneen parce que lu nekk école baa ngi fii te suñu responsabilité la ñun ñëpp jumaa jaa ngi fii yaatal ko suñu responsabilité la ñun li war a nekk Kossy li war a nekk Taïba li war a nekk feneen ci xadara ci bàyyi loolu ñun rek lay xaar xarut keneen kon lii lañ amoon di jéggalu sëriñ yi ñu leen wax ne waaye bu ñu mën a def seen wet rek yéen xale yi dañu gis ne ñun ñoo gën a libre xaj na mag ñi mën a toog ak yéen discussion cinq heures six heures de temps sept heures de temps échanger ak yéen lépp luñ ci mën a def ñoom ñii lañ doon utu ñoom itam lépp luñ def fii tey xalifa bi lañ ci utu ñu koy ñaanal yàlla moom itam ñu ngi gis di nuyu ci taxawaay boobu maa ngi di ñaanal itam ñun ñëpp ak ñun ñaanale di ngeen ko gis fii yal ngeen ko gis ngeen bëgg ko ci am itam yal na am ko ci. wax na dañoo bëgg a suqali biir na mais da ngeen a bëgg a suqaliku yéen balaa mel naa fa la ngeen a suuf waaye yéen suuf am yéen yéen suuf waaye mel suuf kon da ngeen a bëgg a suqaliku ngir xam lan ngeen représenté ci waxuma waxuma Sénégal rek waaye lan ngeen représenté ci àddina bi. da ngeen représenté ci àddina bi ñun ñëpp di ko fu ngi si dëgg nañu fekk institution yoo xam ne ñooy taxawee bokk na ci am nag thème boo xam ne man académie tout Cheikh Ibrahima laa ko doon bëgg a tuddee moom laa ko doon tuddee naka jekk bëgg naa dund ba gis ñu tabax fii di ko dalee ñuy bàyyi bi fii ñëpp ñu tabax ko tabax bu rëy tuddee ko académie Cheikh Ibrahima fii ulumul Qur'an wal wal wal hadis fii ulumul Qur'an wal hadis loolu laa doon génn di ko ñaan yàlla alors léegi ñëw ngeen ak si ngeen ngeen ma ci yal na yal na ko yàlla àggali yal na ko yàlla àggali ci seen loxo te yal yàlla barkeel leen itam ci liggéey boobu ngeen di liggéey da ngeen ci gis barke ndax Cheikh xam ndax mën nga am déet boo tàmbaliwul doo gis ne li nga doon ragal ne mënoo ko mën nga lu ko ëpp mën nga lu ko ëpp nag ci baamu xadaratu Cheikh Ibrahima nga xam ne lépp luy def nit mu mat nit déjà am nañ ko am nañ ko ci seen juddu am nañ ko ci seen yaruwaay am nañ ko itam ci place bi nga xam ne ci lañ màggee ndax kenn gisu fi lu dul rek te su ilal xayri wa tasaaroo ilayhi loolu rek mooy jikko waa Medina te ci lañ nekk ñoom ñëpp bu seen doom ñëwee taxaw taxawaay boobu mais dañoo bëgg a dellu si pour suqal suñu bopp ndax ñu mën a àgg ak suñu fi mu la a àgg fii dëgg-dëgg gàcce ngaalaama yéen a ngi def li nga xam ne yéen a ngi ko ko France bi ngeen ko tabaxee maa ngi fàttali ko waaye bés naa ne foofu naka jekk dafa mos a nekk yoonu yoonu rab yoonu rab ah waaye alhamdulilah léegi yoonu ko bëgg a sotti comme muy xam-xam ne ku fi ñëw da nga xam ne li ngay dégg ci néeg nag ne xam-xamul fa ngay ñëw day lu jëmmal loolu itam ci tabax xam ne bi la yëpp danañ ko am ko fii ne dinañ a danaa ak mbooleem marakis ilmiya yi nga xam ne ñu ngi ci àddina bi ba nit ñëpp di mën a jóge fu nekk di gëstu si fii xam-xam ndax am na fi ay ay ay ay ay ay documents xam ne boo boo boo boo bu la neexee nga ne fii rek la am ndax am na fi ay xutu euh, Mauritanie yoo xam ne yaakaar naa Mauritanie sax amatu fa. bu ñu ko bëggee soxla fii la ñuy ñëw seetal si ko fii te loolu yëpp ay gën si la bu baax wax ne maa ngi yaakaar bu leen jaay téere yi rawatina nag baxtuutaan yi loolu moom bu leen ko laal ndax xam na li muy tekki ji ëllëg ci li muy tekki ji ëllëg ci taarix dafay nekk masdarul baxsi al ilmi nit ñi di jógee fu nekk ñoo di koon si bu leen yàlla mayee si jamono bii ba ngeen àgg leen nañ ko taxaw nañ ko yëkkati vraiment yéen a ngi jaagoo maa ngi fàttali ko ñun ñëpp sa joon la njëkk bàyyi xalifa xaaji Ahmadou Cheikh Ahmad ak ñun yëpp ak imam Assane boobu mu ngi dund ñu toog fa waxtaan ma leen am na loo xam ne war nañoo gaaw def ko ba bala ñoo parce que ñun ñëpp ñoo ci góorgóorlu war nañoo gaaw góorgóorlu te liñ xam ci bàyyi te suñu rakk yi fekkee wuñ ko dañ góorgóorlu pour xamal leen ko ndax bu ëllëgee ñu mën a am fu ñu seen tànk mais bu ñu leen ko xamal bu ëllëgee lu yàqu ci ñun lay yàqu la yàqu te loolu war na ko seetaan ndeysaan na nga fàttali ko imam Assane trois jours avant mu gën daal di ñëw ñu si man ci kër ga dama dama fàttali ko wax boo xam ne yaa ko waxoon dama tiit ma ne ko lan la mu nettali li ma yaa waxoon ko ah, liggéeyam ah liggéeyam yooyu nga xam ne moom lañ war a waaye yàlla yóbbu na ko waaye yéen a yàgg fii yéen a ngi nii yéen ku nekk ci yéen yéenay Baye ku nekk ci yéen yéenay Assane ku nekk ci yéen yéenay ñi ngeen tudd yëpp ku nekk ci yéen moom ngeen représenté ndax bëgg bëgg bi benn la amana rasulu ma wal mu'minuuna kullun amana ñun ñëpp ñoo bokk benn fu ñu teg suñu tànk ñun ñëpp yëkkati ko yëkkati mooy suñu càkkuteef ay ba ay baay ba sës ci ñu ngi yaakaar nañ tamit suñuy sët dinañ toogaat fii gis na war nañoo xam ndax biñ leen fi ubbee itam yàqul yàqul nga buñ defoon itam yàqul waaye yéen tamit alhamdulilah rabbil alamin yéen a ngi am doole euh, euh, volonté ne dañoo bëgg a dañoo bëgg a doon dañoo bëgg a rafet dañoo bëgg a ànd suñu taaru dëkk bi ndax taaru dëkk bi ak dañu seen xanaa dafa wax ne waaye ñun ñu ñuy dégg Dóor Mbaye Dóor Mbaye Dóor Mbaye ñu leen gisee dañuy gis ni ñu rëy nit gën a fees. ma ne ko bu ngeen ñëwoon fekk loolu moom li ngeen fi parce que ay bu rek fekk leen ay buur ku jaar ak yéen si yoonu yàlla moom ngeen di wut. kon nag ak bu ngeen fekkee ay taalibe yi nii yéen gën a sawar pour bu ay taalibe. voilà bu ngeen fekkee ay buur ay jaar rek ngeen di bàyyi seen mbir. alors donc bon su fekkee ñu ngi àggaat ci jamono jamono. Euh, ba suñuy doom jël euh, drapeau bi ne du daanu du daanu ci suñu loxo ndax loolu loolu la ngëneelu yàlla la ak mbaaxu Cheikh Ibrahima moom lu wax ne sama tabax kenn du ko daane sama tabax kenn bu ko daane ku nekk sa tabax mën naa daane ne sama tabax du daanu te kenn du ko daane boobu lii dafay dëggal ne tabaxu Cheikh daane ay xale yoo xam mooy de trente ay trente ans mooy trente ans ñëw daje am itti bii am dogu bi amul sikk ne rafet ne loolu la yàlla dogu loolu la yàlla bëgg yéen da ngeen cee fay rek pour nekk loxo yàlla yoo xam ne yàlla na leen di yàlla na leen di liggéeyloo ngir mottali liggéey bu nga xam ne yéen a ko sos parce que seen i maam ak seen baay ñoo ko sos ak seen i combattement ñoo sos liggéey bi nga ñëw bu gisee bopp bu ko dolli vraiment yéen a ngi def loo xam ne moom la nit di sàkku moom la nit bëgg ci buy am doom bàyyi moom la nit dafay bëgg doom ndax bu fi jógee doomam nekk ca la mu nekkoon. mu ne loolu la ñuy defee doom te loolu yàlla soxla ko moo tax yàlla amul doom nekk bu ñu fi jógee suñu doom lañ cee nekk àgguñu ko donc dinañ dem ba gis ne seen i doomu dëkk seen yëkkatiku dëkk di ko gën a di ko gën a xëyal ci àddina bi mooy ne si directeur police directeur général bu police yéen a ci démb nee na ma ñun xam nañ mbir mi ñun xam nañ mbir mi te kii wax policier la policier mu ne ñun xam nañ mbir mi xam nañ ne dëkk bu dëkk bu kawe la xam nañ ne dëkk nit ñu baax fi dëkk xam nañ ne dëkk la boo xam ne ut lu baax pour doomu aadama rek moo ko tax a jóg xam nañ ne dëkk la boo xam ne mu ngi participer ci développement wu Sénégal ñu dellu kon directeur général police Sénégal moo wax loolu ci làkk yëpp seede ko ci nee na su fekkoon ne seedewu ko police du sànni waxam police lu wax rek la ah sànni wu seen wax neexal mi kenn aussi euh, loolu la loolu lay la fi wax itam ñu ngi yaakaar seede boobu euh, nga xam ne police wax nañu ko dama leen koy jottali pour ngeen xam ne loolu la police du Sénégal seede ci leer te yéenee doon leer bi yéen ay xale bu bëri la ndax ñooñu waxtu wu nekk rek ñu gën a dëggu di gën a jëm kanam di gën a yëkkati ko dinaa wax ci sama waxtaan bëri mais xale moom la yàlla damay ñun jàllale suñu fait réserve rek ay conseil waaye yéen ci la yàlla di feeñal ci yéen la yàlla di feeñalee nga dee la donc ñoo ngi ñaan yàlla bu baax a baax gannaaw commencé nag pour dem tàmbalil dem bàyyi mu ne boo tàmbaliwul doo xam loo loo mën gannaaw tàmbali ngeen di ngeen gis ne mën ngeen lu ëpp li ngeen tàmbali mën ngeen lu ëpp li ngeen tàmbali ndax yàlla na àgg ci jàmm kon ngeen boole ci kii àggale waxe ko parce que ñi ko doon yëkkati yéene bu ñu amoon dañoo gisoon ne dañoo war a tabax banque fii dafa war a am banque fi bëggoon waxtaan bu nekk euh, dama di nettali ma ne problème bu banque doon ci biir yëngatuwaay ndax coopérative mutuelle yi amoon fii ñu ko ñu moo ko ñu ko tabax fii Sénégal coopérative mutuelle mutuelle mu doon am waaye nag temps ba mu koy def ak xaalis bu bëri lañ ko joxoon pour mu liggéeyee ko 40 millions jamono booba moom lañ ko joxoon pour mu liggéeyee ko waaye boobu ñu xam ne xaalis bu toll fi xaalis pour liggéeyee ko xamuñ ci euh, liggéeyee développé wu xamuñ ko ñi ko xam itam mooy ñi jógee ci école bi duñ nangu waa daara ji jiitu leen ci loolu su ko defee buñ ëllëgee bu ñëwee ba fi amati liggéey donc bon ay moo yàq liggéey booba bon nag bu ñëwee ba xam ne fi nekk ñun ñëpp ànd nañ nekk benn donc suñu liggéey yàlla mën na ko yombal am na waa école bi waa daara bi ànd nañ nekk benn parce que xam-xam mooy mooy luy joxe xam-xam mooy luy joxe xam-xam du yàq xam-xam du daane xam-xam du delloo gannaaw mais xam-xam dafay joxe di yokk bon nag xam-xam bi jógee ci école bi xam-xam ci daara bi yëpp xam-xam rek la mu yokk ñëpp yokk yokk ñu ngi yaakaar su fekkee yëg ngeen ni ngeen ko yëgee euh, responsabilisé woon nii ngeen ko defee da nga danañ yaakaar ne bala ñoo am trois mois di ngeen di ngeen bëgg incha allah nit da ngeen jox leen nag beneen gis-gis boo xam ne ku fi ñëw dina xam ne am na lu bees ñëw na ndax ñi fi ñëw daan ñi fi daan ñëw te daawul ko fekk bu ñëwee ko fi dañ xam ne mbir na mi ngi dem mbir na ñu ngi doom néew na ñu ngi dem doom néew na ñu ngi ànd ak seen seen dëkk seen maanaam dëkk seen yëkkatikoo dëkk ñoom itamit ñu yëkkati ko yàlla ko jërë ngeen sëñ may leen caméra yi ñu jël waay may leen caméra yi ñu jël boobu. ñëw leen ñëw leen ñu may ñu jël ñëw sëriñ bi sëriñ Mbaye. génération future danañ xam ne kenn ku nekk dañ ko fi bàyyi jëriñoo ko ñi nga xam ne sax téere yi ci moomal boppam ñi ko faree gannaaw tey doomi deretam yàlla dana leen doyululoo walis mu jaay loolu daa ëtt bii dafa bëri histoire si nga fële ca koñ ba fële seng bi am fii la xalifa xaal xalifa Cheikh Ahmed Tidiane fii la njëkk dëkk moom moo xamaane la soxna su mu dëkk a denc fii la dëkkoon ak moom buntu kër gi nekk fii ëtt bii ci la bàyyi daan mawlite bu weeru gàmmu terowaan bu ñu wasifaa ju liggéey ba pare nit ñi ànd ak moom topp kook lampi pétrole yi ak lampi torche boobu électricité xewut rajo xewut bu ñëwee ñu tàjjal ko piliyaanam lal basan magi taalibe ci toog Baye Mbaye Serigne Aliou ak Alaaji Abdoulaye te ëtt bi du xàqoo fees ñuy mawlit bàyyi di wax nit ñi aw jigéen ñi faree gannaaw ëtt bii fii nii lu ne xew na fi lu ne bàyyi def na ko fi moo tax suñ ko bëggee soppali ëttu néegi xam-xam ma ne laa xar wa bàyyi fii la daan dégloo ñu bari lël sax am na ci boo xam ne bi ko bàyyi di taxawal fii la toog ci peromam gi xam nga bàyyi nit la koo xam ne fonkoon na aada yu baax yëpp aada yu baax yëpp bàyyi fonkoon na ko aada yu bon yi la dëppoowut ak lislaam la mës ta wax bu daan taxawal bu daan taxawal lël dafay wax na bu yàgg ba rek moom ñaan yàlla ñaan na yàlla ba yàlla nangu na ko xanaa kuy jëf lañ bëgg a gis yéen ñi préparé da ngeen jëf bàyyi ñaan na yàlla bu yàgg moom jàng na bayti bi fii sara laha sirru nabi xabasaha tanfi bila bi man kadaha fa laysa za bi dairin sarat zuyulaha ala alxawaatir bàyyi mu ne Medina gii ko fexeel doo ko mën dara ama bu doon pexe ba na ci dara kon Medina raaf na bu yàgg kon dañuy wax ne fii la nekkoon ci carte Sénégal pexe mënu ci dara pexe yu bon mënu ci dara ku fi dëkk ku nekk bëgg fee dëkkee lu uuteeg li fi bàyyi bëggoon lu mu fi mën a tabax ku am njëg toogal nekk ko dana la ko wanteer amul benn wax liggéey jaamu yàlla jàng jàngale rek loolu la li ci ne suñu yoon nekku ci ku ko amit marxaban bi ko jëlal loolu lañ bëgg ñun suñ sëriñ doy nañu sëkk ñaanal nañu yàlla ñaan gi yàlla nangu na ko balaa ñaan yàlla yàlla wax na ko ne ko ñaanal dara nangu ñaan na yàlla dëkk bii ni ngeen bëgg mu mel lépp dana ko mel maa ngi séentu maa ngi séentu ngeen gën a sori loolu ca pegg mba doxun maa ngi séntu projet bi ñaareel bi fa lay doon incha allahu taala gannaaw beesal juma ji juma yi ñaareel ji foofu ngeen koy tabaxee bismillahi taala ak saalu conférence yaak yooyu foofu ngeen koy tabaxee bàyyi ëpp na lii lépp bi ismillahi taala maa leen di ndokkeel leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla def ay mag yal na leen yàlla wattu yal na musal waaw lii ñu leen ci dégg yëpp wala mu fekk leen ci naw na leen géew bu ngeen dem budul bii rek ñàkkal ngeen seen bopp fayda yéen juruñu leen pour fo juruñu leen pour caaxaan juruñu leen pour wax lu ñàkk bopp juruñu leen pour làmbatu itam xam-xam rek ak def lu baax ni ngeen dodo gone loolu rek tax mu jur leen yàlla leen yàlla jox wiraasa seen i baay seen i maam seen i maam mataar ba ca fu gën a sori fa yaa rabbi ya allah yaakaari baay yëpp yàlla na ngeen bokk ci ñi nga xam ne yéen koy dëggal barke yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmed Tidiane barke Baye ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi leen di sant bu baax ñi nga xam ne pàkk bii pàkk bu bëri zikraat la ci Médina ñun ñu doon gone ñëpp xam nañ ci dara maa koy wax Cheikh Mahi léegi ma ne ko bu àllar ba jotaan ci jaara ji la ñuy bàyyeekoo ñëw fii dégg nga bàyyi sant yaa ma jëm radiallahu anha ne nañu wat kon mu indi ndox ci biir kër gi am na ñaari teen yu fi nekkoon mu duy ci ndox indi ku ñëw sëgg mu tooyaloo sa bopp wat la ba pare nga dugg ci bàyyi mu raay sa bopp nii ñaanal la ci picc pàkk bii la daan xewee ñu ngi ko daan defal loolu ñun fi mu ay màggat lañ ñu ngi ne ay màggat lañ kon loolu mooy pàkk bii fii ngay gis nii fi la Cheikh Omar Haydara yaroo fi la ko soo maama yaroo maam Roqi fi la ko yaree fii ba mu taree alquran fii fii ci néeg bi nekkoon fii mango nekkoon fii si nekk fii lépp ay zikrayaat la buntu bii suñ gannaaw nii xam nga bàyyi bu 10 heures jotaan mu tëj buntam ci mbaar mi kenn du ko jaaree foofu xanaa ku mu soxlaal boppam bu soxlaa laaj Abdoulaye dana ñëw dafay jaar ci biir kër gi am na xaq ci jaar ci biir kër gi ndax doom la bu soxlaa Sidi Aliou dana ñëw dañ koy ubbil buntu bala taxaw xaar ko mu ñëw dugg ku dul kooku nag soo ñëwee itam ci ñoom ngay am ñoom ñaar ba bàyyi ubbi ci fajar moo tax buntu bii ngay gis nii moo doon baabul nisaa ci la waa kër gi daan jaari jigéen ñi daan ay gan bàyyi dafa daan ay gan yu jigéen yu koy gane si bu ñëwee mu dénkaane leen ci biir kër gi su leen di ewi guddi la leen di ewi dañuy ñëw ànd ak waa këram boo ñëwee toog mu toog mu jox la teraanga yi mu lay jox ba pare teg ko ci loxo kooku mu jox la ko ko ne mu ñaanal la yàlla ewi la boo xëyee nga dem seew mooy bunt bii ngeen di gis nii téléphone bi ay njëkk am fii la nekkoon ci koñ bii mooy téléphone yooyu ñuy manuel da koy koy ko bu baax da nga koy bu baax bu baax booba ñun ay gone lañ dañ ci laa ñëw di ci fo moo tax pàkk bi pàkk bu bëri ay zikriyaat la lii li ma ci xam nii am na ñoo mag ñu ci xam lu ko ëpp waaye naa pàkk bu barke la pàkk bu baax la lii ngeen ko defee nii yelloo na ko yéen ñu ko defee yal na leen yàlla barkeel waaye yal na ngeen barkeel waaye da ngeen gudd fan lool. yaa rabbi allahumma salli ala sayyidina Muhammad naa discours boobu ñëpp a ngi koy déglu doon suuf soo xam ne bàyyi nga tëdd ci ci suuf ndax yoon ñuy def ci kaw suuf soosu yenn yi lu mooy lan mooy ne suuf Medina yëpp ku fi nekk rek war nga di xam ne dama wàllu tëgg waaw war la woon waaye daf daan wax ne suuf Medina maanaam man li may wax maanaam suuf Medina ku ci nekk rek war nga di xalaat toujours ne fii mooy fi bàyyi daan jaar. te loolu daal am fi bàggal. waaye dafa daan wax loolu si Madinatul Rasul salaam ba ñu am jàmm di ko tàggu dafa ne moom bu ngeen di jàmm bu ngeen demee Madina leen óor na fu ngeen jaar rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar na fii tamit nit ñi war nañoo am idée boobu ak éducation xam ne fii Medina lépp si jumaa ji la bokk lépp si Medina la muqaddas la rawatina bërëb bii nga xam ne nii am na vidéo yoo xam ne ñoo koy seetaan bàyyi néegam gi la génne ñëw fii waxtaan ay garam muy ba si loo xam ne ni wax dëgg yàlla lu manzar boobu di ko gis ci ko xool nga xam ne Cheikh Xaan radiallahu taala anhu moom waxoon ne ne innama nuzhatu nufuusi bi kuusi wa bi kuusi taabat nii lat xayaatu nufuus ne si kuusi si la ñuy jotee seeni bëgg-bëgg xal ak seen ñami xol yi seen xuutu arwaax yi si ci Kossy lañ ko jotee Kossy nag fii ci Kossy la ndax Kossy maanaa la mooy fépp foo xam ne Baay radiyallaahu taala anhu nekkoon na fa nokki na fa jàngale na fa tagg na fi yonent bi sallallaahu alayhi te ñun ñëpp xam nañu ne baraax bii mu tudd ci bërëb yi nga xam ne ni boo duggee ci xasaay yi ko ci fekk muy tudd ne maa ngi nekk ci bërëb bii ma nekk di tagg yonent bi sallallaahu alayhi wa mi ngi mel ne yonent bi mi ngi mi ngi ma sori waaye li ma sori bi ma jege ba nekk ma ci sama baraax baraax buñ ko waxee du néeg néeg mooy lee mais baraax mooy li nga xam ne ni moo génn ci moo bokk ci ëtt lañ koy wax loolu indi na ko ci woyu mi ay bëri yu bari bon nag barab bi bu soppali ko ba wax dëgg yàlla loolu ñu ngi koy rafetlu di gën a soññ suñ mbokk soññ shabaab yëpp ñu xam ne ku ci nekk rek li am na lu la ci war lii képp ku eewoo ma jënd rek na nga fexe sa dërëm dem ci Cheikh Bachir wax na léegi na malaaka yi duñ ñëw tabax ko jinne yi duñ ñëw tabax ko waaye man damay wax ne sax ñu sàgganee sax malaaka yi danañ ñëw ak jinne yi tabax ko waaye yaakaaruma danañ àgg ko mais itte yi alhamdulilah wane na incha allahu euh, dëkk bi si lu baax rek lay jëm te doon naa lu lool euh, euh, dama koo yàgg a wax dama daan wax ne jumaa jii nii danaa fi gis léegi-léegi ñuy ñi ñu di sonal seen i bopp ak ci yeneen makaan yi rawatina booy dugg Medina def fi ay photo Baye ma ne am na photo baax na lool waaye Baye radiallahu taala anhu bi mu sosee Medina am na lu mu waxoon ne loolu la bëgg Medina men am na lu mu waxoon ne loolu la bëgg ñi dëkk ak Medina men noonu ma ne yaa layta resté risaala boobu noonu ñu jël ko fexe ba képp kuy dugg Medina xam ne lii moom la Medina xayoo si moom ndax ñaan na ko wax na ne kii dëkk ak moom nii la war a man nii la war a men nii la war a man waxoon dañ kuy dëkk Medina nii lépp loo xam ne dafay safaanoo ak sunna di safaanoo ak mbaax di safaanoo ak njub yàlla na fi sol leetale boo fa naa ñu ngi koy jàng ba wuset loolu nag alhamdulilah yi tey lii nii natija la si si boobu ak si ñaan googu nga xam ne moom la bàyyi doon ñaan yàlla nañu yàlla defal tawfiq di gërëm ñëpp leen sant waaye di gërëm tamit euh, euh, suñu média yi nekk ci dëkk bi Al Fayda TV euh, di gërëm Fayda Tijaniya ak ak Kossy TV yi nga xam ne ni wax dëgg yàlla léegi suñ mag ñi ñëpp alhamdulilah léegi tumarante ndax dañu daan nekk ci kër yi duñu mën a génn waaye léegi alhamdulilah ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak pay bi di ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim ba ñoom sax léegi li ñuy xam ñoom ci Mawlana Cheikh Ibrahim daanaka ñi nga xam ne ñu ngi teew ci barab yi sax duñ koy xam ndax dañ koy déglu heure bu leen neex te loolu yéen lañ ko may kon ñu ngi ñaanal suñu média yi nii yal na leen yàlla gën a yokku yàlla dimbale leen loolu tamit ci mission yi bàyyi la wax ñëpp xamoon nañu Cheikh Mouhamadul Mamoun waxoon na ne bàyyi bokkoon na ci bëgg-bëggam mooy dëkk bi am rajo am télévision boo xam na ni lépp luñ fiy def ci baax dafay tasaaroo loolu nag alhamdulilah yi suñ kilifa yi teel na ku teel nañ ko dégg ku mel ni Cheikh Mouhamadul Mamoun nga xam ne sampoon na antenne fii loolu ñu duñ ko fàtte pour loolu Cheikh Imam Hassan Cissé ñëw nag dëggal loolu jëmmal loolu ci Alfayda ba léegi nag ñu di tasaaroo tey ba xam ne ne alhamdulilah loo bëgg a seetaan yàlla yal na yàlla yokk lépp képp foo xam ne ni feedo bi àgg na fa rek yal na fa yàlla yóbbu seen média bi nii def ko si li ñuy déglu ak si li ñuy gis yàlla na ko yàlla nañu ko yàlla defal ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi tamit ñi leen di ñaanal yàlla yàlla buñ ci gis seen bopp ñu ñëpp kenn bu ci gis suñu bopp ñu gis ne lii liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu te bàyyi ma ko koy am saadatu daarayni wa salaamu alaykum wa